vitrine du Sénégal yaa ngi de waaw léegi bu fekkee lool la yow tey jii wax fii euh, euh, am na loo xam ne nii boo ko waxee tey jii ci RTS tey jii euh, mais RTS plainte bi pour yow RTS génn na si génnu si de waaye ah? la ak RTS bi yëpp parce que RTS ñoom ñoo véhiculé day mel ni tey jii nii man ma ñëw wax yenn wax yi nga ñëw génnee ko biir source A pour yow waa source A kay waajee complice la mais ma ñun ñooy auteur principal mais bokk xam nga par exemple la moo tax ma ni bokk parce que loolu fête de la musique la woon mu nekk en direct mais est-ce que responsabilité RTS mu ngi mais responsabilité RTS a ngi ci parce que RTS a la responsabilité tey jii s'il y des images yoo xam ne nii c'est indécent RTS gis ko RTS waru ko publier yaa ngi dégg mhm. est-ce que yow ba ngay euh, kii ba léegi mës nga dégg man de maa ngi koy soog a dégg man moom maa ngi soog a dégg waaw man. waaw waaw kii kan xoolal lii lii est-ce que est-ce que man maa ngi oh, kii nag loolu laa oh, kii bon c'est une c'est une la dame elle s'appelle comment une certaine xaw ma lan jaata. xaw mhm. ma. mu ni. Euh, défrisé. waaw lii frisi la waaw lii eh, bon euh, xam nga. yàgg la def yi ah du c'est pas la première fois de. xam boo déggee ñu lay wax loolu tey jii boo nee responsabilité responsabilité responsabilité. Euh, maanaam le journaliste wala le média dafa am foo xam ne dañ koy xaar si yow yenn yi buñ koy jàllalee sa antenne euh. yaa ngi dégg tu as la possibilité tey jii de couper l'antenne mhm. waaw parce que ah, moom moo ngi nii mooy indi problème bi xam nga lii nii tey jii. polémique moom kan sàmm moom lañ porter plainte moom lañ porter plainte. waaw dañoo si nii comme ça. nee nañu euh, le collectif And Samm Jikko Yi porte plainte contre la sulfureuse défrisée saisir nañ procureur. yow fo yow fo donc est que tu as lu la plainte. muy nii attentat à la pudeur parce que lu ñu koy toppee mooy. attentat à la pudeur atteinte à no mœurs. est-ce que tu as lu la plainte léegi je vais li lire la plainte léegi non je te lis la plainte léegi euh, Dakar le juin 2024 à monsieur le procureur de la République. près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar euh, plainte monsieur le procureur le collectif And Sàmm Jikko Yi en sa commission c'est important il faut écouter parce qu'on commande les faits en sa commission femme vient saisir votre haute autorité des faits particulièrement graves survenus lors d'une soirée organisée en partenariat avec la RTS dans le cadre de la fête de la musique au terrain ACAPES 6 aux Parcelles Assainies une certaine Elisa Marie Audrey Diatta alias Di Frizi en la circonstance a choqué le monde avec un spectacle d'exhibitionnisme digne d'un film pornographique auquel elle s'est livrée presque nue avec la complicité vulgaire avec la complicité vulgaire de notre télévision nationale moo tax ma ne la la RTS est complice yaa ngi dégg waa mais loi bi loolu la wax. yow yow xanaa xanaa xanaa xanaa mosoo am problème si ay déggoo li ma la wax. gis nga tey ji nit am na yenn acte yoo xam ne bu ko posé. yaa ngi dégg si biir média média bu ko diffusé moom mooy auteur principal. waaw dëgg la man weddi ma loolu. Ah? comme par exemple fois sax dañ ne nga. sa yow loolu laa lay tey ji moo tax ñu ne la tey ji moo tax ñu ne la yow tey ji di journaliste da ngay am responsabilité des fois tey ji ngay wax ak nit sax mu war a wax loo xam ne nii. peut-être nga arrêté ko quoi tu il faut avoir le courage parce yaakaaree ni yow yow boo nee non non moo ko wax rek garaaw loolu gënneew la dëgg la weddi ma loolu mais non a expliquer mooy xam nga lii fête de la musique c'était en direct. mais ils ont la possibilité de couper loolu laa wax. non non non non non est-ce nañu couper en direct. mënuñu couper en direct. en direct c'est en direct mënoo couper. xam nga loolu lay. par exemple la Aline Aline Donald Trump ki nga xam ne nii. Euh, c'est l'ancien président des États-Unis qui fait une émission yaa ngi dégg en direct sur une chaîne de télévision CNN di wax ay wax yoo xam ne nii jaaduwul yoon le journaliste a eu le courage de retirer son micro. mais ba ma àggali. waaw ba ma comme ça Fatima lan laa bëgg a faire comprendre. waaw xaaral xaaral ma ñëw balaa coupé sax. waaw baamu ñu ñoom ñi teg ñi nga xam ne ñooy techniciens yi gis nañu ni déjà moom dafa war a yëg sur scène. moom il n'est pas approprié rek donc warul woon. vulgaire de notre télévision nationale qui n'a jamais auparavant qui qui jamais auparavant ne ne s'est à ce point compromis dans la bassesse des mœurs yaa ngi dégg. yaa ngi dégg man li ma bëgg expliquer mooy. fête de la musique la woon man waxuma man instant yi néew ma di dédouaner la RTS de parce que comme li nga expliqué même fii nii tey ci plateau bi ñu nekk nii nga invité woon kenn mu def dérapage amul ay wéy lii de ñëpp ñëpp ay complice tu vois mais li ma la bëgg fay comment mooy fête de la musique la woon mu amoon liste d' artistes bu waay yéeg sur scène Fatima wax na lu am solo peut-être bu ñu gisee défrisé am na colin bu mu sol responsable RTS waroon nañ ñëw ni ko ah li nga sol nii. woo yéeg sur scène xam nga laa ni nga nii li nga sol nii man kii xaw ma ko sax fii laa ko ci affaire bi laa peut-être lii aussi moyen la pour siiw xam nga des fois aussi am dégg naa. mënul rap xamul dara li ma dégg dégg naa dégg naa mënul rap aayu mais peut moom lii mooy moyen boo xamante ni war nañ mën a wax ci moom effectivement mm. mais man sànq wax nga lu am solo. peut-être responsable RTS avant moom muy yëg sur scène war nañ ko woon ko ah sa habillement bi moom wax dëgg yàlla dafa indécent sunu amuñu droit bàyyi la ngay yéeg ñu lay filmer mais man li ma bëgg a wax Oumar mooy di moment que yéeg na sur scène en direct foofu mënatoo ci dara. mën nañ si dara technicien bi nee na mën nañ si dara. on mënu ci dara bu doon émission boo xamante ni dañ koy enregistré. la waaye doo teg technicien. waaw du ma technicien xam nga li ma la wax koy coupé eh, yow. man invité naa nit muy jooy ma ni leen. xanaa non c'était en direct. non non li mais waaw mais technicien bu direct da nga koy coupé. non coupé Alioune ngir yàlla ak yonent bi. émission bi sax jeex ngir yàlla ak yonent bi. émission tey jii bu ma bu ma jëlee initiative wala ma ni carrément Aliou instant bi mi ngi mi ngi perturbé je dis euh, Moussa coupeel ma micro am Aliou s'il te plaît est-ce mën nga lii yaa ngi dégg ñu mu ñu ñu tegal ma dara son wala ñu tegal ma musique dara la temps que nga débarrasser le plancher Moussa waaw nga ni foofu laay noonu la mën nañ ko couper soit mu dugal musique wala générique ak et tout kon bul ne mënu waaw foofu laay waxee mais du moment que jàll na ba pare Oumar foofu RTS loo leen ko wax tooñ ko ah d'accord Aline moo ngi moo ngi défendre la RTS. en tout cas en tout cas wax dëgg yàlla plainte bi dañ ko a en tout cas en tout cas en tout cas euh, RTS. Ah mm. war nañoo euh, man damay dal ci RTS quand même parce que euh, bon récemment. on a pris euh, Wally Seck Wally Seck comme ambassadeur la RTS yaa ngi dégg la RTS waa waa nekk ci dynamique jubóowu ak askan bi mais je pense que euh, comme comme comme euh, journaux bu nekk journal bu nekk wala média bu nekk nu mu amee ligne ligne éditoriale RTS ligne éditoriale am mooy tey jii c'est porter les valeurs sénégalaises ça c'est important parce que c'est notre première tribune quoi c'est la tribune officielle donc RTS am na yoo xam ne nii même waali Seck bi nga xam ne nii tey jii nee nañ ko en tant que ambassadeur moom loolu da ko war a bàyyi waale xel parce que il a eu à porter peut-être des habits yoo xam ne nii c'est efféminé mhm. te yow yaa ngi xam nga ni en fait euh, y a y a une distinction doit être faite mhm. par rapport à l'homme et la femme par rapport à l'habillement mhm. yooyu dafa war a clair quoi parce que ça joue sur la psychologie des gens comprendre nga léegi loolu c'est important léegi RTS peut-être lii ils ont ils ont merdé ah moi je dis que le ARS a carrément merdé ils ont fait une erreur moi je pense qu'ils ont fait une erreur euh, en direct lii bu amee on coupe l'antenne di frise yi jàll après keneen ku gën a présentable au peuple sénégalais ñëw nga wane ko comprendre nga je pense que c'est important te je pense que si la RTS est associée à un certain nombre d'événements moom si wàllu boppam dafa reposer ses conditions par rapport aux artistes par rapport à un certain nombre de choses war ni moom c'est la télévision nationale lay porter ay valeurs culturelles ay valeur religieuses am na loo xam ne nii waru ko parce que tey jii euh, RTS ba bañ koy dégg ba léegi ah en tout cas man peut-être bon de mémoire d'homme man c'est la première fois ñoom sax loolu la ñu wax que RTS ñu leen di tudd ci genre polémique yi en tout cas ça démarre mal pour Pape Alé Niang. ah non waaw ça ne mal parce que ça ne démarre pas mal non si Omar trop sévère. mais il faut trop sévère parce que. je pense que Pape Alé non même àggali foofu rek juste même foofu benn crochet Pape Alé Niang di wax dëgg yàlla depuis son installation mu ngi commencé teg ay jéego loo xamante ne ñu ko gis mosoo gis opposition. ci chaîne nationale. Oh. récemment xaa xaa ma ñëw xaa ma ñëw rek xaa ma ñëw récemment. Alioune Ndoye la émission point de vue il est de l'oppo lu ko neex la wax Diomaye ak Sonko Abdou Mbow Diané et su yow su Racine Talla est-ce que gisoon nga ko donc man je pense que Pape Alé est en train de poser des actes mu ngi soog a door nañ toog a nañ